Kolda ci statistiques yi ANSD jot mooy la région la plus pauvre du Sénégal nee nañ taux de pauvreté ci Séné ci Kolda atteindre na 67 65 virgule 7 pour cent avec tout le potentiel bi Kolda am est-ce que Kolda mérite sa nee nañu Kolda bokk na ci région yi gën a kawe taux de chomage rawatina le chomage des jeunes ñu ne en matière de santé Kolda bokk na ci région yi gën a néew taux de couverture ci wàllu santé amul benn norme boo xam ne organisation mondiale de la santé joxe na ko ci taux de couverture ci santé te Kolda remplir ko ci wàllu éducation région bu toll ni Kolda université sax amu fi et pourtant potentiel Kolda bi kenn xamul nu mu toll